waaw euh, yaa Seyda. Mhm. Euh, son bu andi na ci ab kii ndax xam nga wax ji daa xaw wolofe mhm. waaye bu départ rek da ngay gis bunt bi léegi. Mhm. wolof day wax ne euh, tib bu rëy rey na borom waaye jëriñoo ko taxoon a jóg. waxaat ne tib bu dul rees mëtt rëyal. waxaat ne sàcc bu dul raw jërte yàqi nelaw. waxaat ne njariñ la nga fekke bu dee ko benn ne sëñ ñu ne ko fu njariñ ne mu ne fu yaakaar ne rek kon yooyu dafa nekk ay wax yoo xam ne ay baat la waaye li ci mën a dégg day bari mm-hmm. euh, ci ci ci ci boo ko boo ko teqantalee nit nag dafa am lu ñuy wax égoïste nga xam ne maanaam moom bopp ci boppam rek lay xëy ci lay gont jàmm sax boppam la koy yéene banque bu doon benn bu ñëwee day defe ne moo cay toog maanaam loolu bëgg koo dindi ci nit moo tax ñu ne ko njariñ la ngay fekke parce que am na ñoo xam ne tey danañ xëy di liggéey di am waaye duñ ci sol sax mbubb dañuy denc rek. Hmm. di ko nga xam ne ci seen xel rek lañ la la am am bi nekk. dañuy wàññi naan am naa nangam am naa nangam bu nee ma def nangam ba xëy dee ñu séddale ko say say seen seen i doom. Hmm. ñoom duñ ko fekke hmm. am na ñoo xam ne mosuñoo am am mu baax ci li ñuy li ñuy liggéey. ñooñu nag am maanaam seen njariñ ñoom dund dundewuñ ko mm-hmm. waaye nag mën nga koo jëlaat ci beneen baat boo xam ne tamit maanaam boo ko jëlee nit ki mën naa bëgg a jëmbat fii garab waaye bu fekkee boppam dong nga tax mu koy def daanaka jorul mu koy def parce que mm-hmm. xam na ne balaa cee toll ci watt di lekk moom day faatu ñeneen a koy jëriñoo mm-hmm. ku mel ne alaaji Sidy Lamine tey ba muy teg télé bii bu fekkonte ne njëriñul boppam ak poos boppam rek rek rek rek du jël yi di ko def ci télé da koy jëndee leneen loo xam ne maanaam mën na cee jëriñ waaye dafay gis ne maanaam njëriñ bu ñuy wax njariñ dëgg-dëgg sax. Mhm. nekkut loo xam ne yow da koy jariñoo yow képp. réussir dëgg dëgg dëgg du yow nga fexe ba tekki. Mhm. di añ di reer di ndékki loolu xar yi mën na lañ ko seen bopp te amuñu amuñum xel dañuy xëy fii wër-wër ba ngoon waaye doo gis xar mu xiif rey. Mhm. danañ la jënti ba lekk danañ la jënti ba naan. nit njariñam dafa ëpp loolu. ëpp na mu mu fexe ba ba ba rëcc rek moom. waaye fexe ba aw nit wu yaatoo yaatu yu mhm. rëcc ci sam xel di rëcc ci say xalaat ak di rëcc ci sa poche mhm. ak di rëcc ci sa yëngu-yëngu bopp mhm. loolu mooy mooy mooy mooy mooy njariñ njariñ nag dëgg-dëgg buñ koy wax mooy xam ne nit ci sa boppam da nga koo jariñoo yow wala société bi nga nekkal jariñoo ko te li nga jariñoo yow ci sa bopp moom amul njariñ waaw li nga fexe ba teg ko aw nit di ko jariñoo nga xam ne nit day jariñu ci yow sax te du ko yëg loolu mooy njariñ am waaw macha allah am na solo waxtaan bi parce que tey da nga jël point boo xam ni bu am solo la te bokk na ci tardé réew mi. Hmm. muy njariñ loo fekke ba tax na boo seetee sax sunu njiit yi. Hmm. bu ñuy tënk dara dañ koy teg selon diggante biñ ñu ne. maanaam seen gis-gis du yaatu parce que dañuy natt lépp autour de seen jëmm bu ñuy teg projet dañ ñaan la bu dee 4 ans ko fa dañ naan projet bi na ci 4 ans yi. na pare ci kii bi na pare lépp dañ koy nat selon ñoom ni ñuy doxee maanaam mhm. moo tax gis-gis bi du du yaatu teyit am na yu bari yoo xamante ni bi ëllëg mënoon nañ koy tabax sax mais duñ ko tabax c'est parce que li tax duñ ko tabax parce que dañ naan nit ñi duñ ko gis te buñ ko gisut du ma amal njariñ day dellu ci ñoom maanaam lépp day wëlbatiku di dellu ci nit gi maanaam égoïsme boobu moo ci ne mhm. tey ñu xam ni njariñ ak wërsëg bokkuñ nit ki li muy lekk ci dundam ala kulli dana ko lekk bu jeexee mu dem ba ko fi mm-hmm. Mm-hmm. loolu nag bokkut ak li nga xam ni mooy njariñ li nga xam ni moom la fi mën a bàyyi ba ëllëg mu fekk ko fa mu ne parce que njariñ loo fekk njariñ dala la fekki que ni ñu ngi jàpp fekk bi fii rek la mm-hmm. mais njariñ dana la fekk fa nga ne parce que am na ñoo xam tey saxal nañ garab ay nit di ca loolu wala tabax nañ jàkk ay ñaan di ci am. Mhm. ñu leen di kii yool ba da leen fekki fa ñu ne kon njariñ la fekki na leen. Mhm. ñoom nag bu fekkee ne seen gis-gis dafa yem ci àdduna bi jàpp ni fii lay ne dafa mel ni sax loolu àndut ak ngëm yàlla parce que bu fekkee ni gëm nga ni tey dafa am ëllëg am. Mhm. waroo wax na njariñ loo fekkee parce que ñoom defe nañ ni boo deewee rek geex na. kon te njariñ yamut ci nga dee. kon léegi baat boobu kon léegi baat boobu nga xam te ne moom mooy njariñ loo fekkee est-ce que tey jotul tamit ñu ñu xoolaat. amul njariñ nga baat bi ci boppam moo amul mhm. njariñ baat boobu ci boppam moo tënk euh, sunu réew yi baat boobu ci boppam moo ñu tënk mhm. waaw baat boobu ñu wax naan njariñ loo fekkee mhm. dafa tënk lu bare bare bare bari ci ay nit waaw waaw bu ci rëccee ñett yoon ñeenteel bi lañ koy rey kooku mi ngi wut njariñ lu dul fekke non comprendre li ma la bëgg a wax te seex la njariñ loo fekkee bu fekkente ni bi tey xam nga bu ñuy wax njariñ loo fekkee moo wax ma la agresseur bi li muy def loolu njariñ la du jàppewu ma ko njariñ a jariñu yow man mais yow yaa ko jàpp mais man gisuma jariñ na ko même bu koy jariñ mais nekkul loo xam ne loolu du mun ma ko tuddee man njariñ quoi parce que nit ki li muy wax ne njariñ mhm. dëggantaan en sens du terme liñ ci jublu mooy nit koo xam ni yaa ngi taxawal dara wala yaa ngi def dara loo xamante ni bi am na bit boo xamante ni bi kii mhm. mais par exemple am na risque boo xamante ni bi am na ci comprendre nga ñu ne la njariñ loo fekk mais day nekk loo xam ne lu leer la lu baax la lu kii la comprendre yooyu mooy kii kaay am na ñu jaar gaar rëcc mhm. am na ñu kii mhm. daal di ñàkk seen bakkan mhm, ñu ne la njariñ loo fekk ak affaire yooyu par exemple dañ la ko wax pour décourager la ak affaire yooyu quoi loolu laay quoi mais dama ne njariñ mën na la fekk fii mën na la fekk fa nga jëm parce que ëllëg si biir gëm nañ ñi ñun ñëpp dinañ dee ñun ñëpp danañ dekki te la nga xam ne bi moo lay defaral sa ëllëg yaa ngi koy amee ci sa fii mhm. fii nag bàyyi fi loo xam ne nee nañ la boo taxawee jàkk nit ñi dafa julli booy ñaan ñaan ya da lay fekk fa nga ne mhm. kon njariñ laa ngi lay fekk fa nga ne mhm. kon donc je pense que nit li am solo rek muy nit ki gën a yamale bañ a yamale mbir mi

ànd mhm. parce que tout à des fois le contraire ngay gis mhm. benn ñaar man dama defoon dañ ni njariñ looy fekke par exemple nit nekk di daw di daw sa talul sangu talul lekk talul naan mhm. lépp mi ngi daw pour am alal wala pour am lu muy lu muy dundee nit ni ko waay waay njariñ loo fekkee man dama defe ni coono googu ñu koy wax pour man waa voilà loolu lañ koy wax ni ko àddina ndànk-ndànk wala nàng pour delloo si nit ki mu dal. pour mu wàññi ak bëgg très bien pour yemale ay bëgg-bëggam. Mm-hmm. loo xamante ni yow booy dee doo ko yóbbu nii rien sauf li saa wax peut mm-hmm. nga am yoo fi def bàyyi ko fi ñu la nit ñi di ko jëfandikoo di la ci mm-hmm. ñaanal. Euh, seen xol di ci sedd. mu lay fekk si loolu d'accord na ku munta mu baax daanaka du tabax dara. du fi def dara. waaw parce que iñaan moo tax ma ne man sens bi ma ko jëlee ak sens bi ma dégg ñu expliqué. Mhm. man man man du benn ci sama bopp. man mhm. pour man nit kiy daw te wa taxaw rek. di liggéey di wut lu mu denc ak lu mu kii pour man kooku la ñuy mhm. yedd. pour man genre yedd la en fait. njariñ loo fekke toogal nga dallu wala nga noppali ko àddina nangam ak nangam. man loolu laa foogoon. waaw parce que li nga wax noonu tamit sens la. si si njariñ loo fekkee moom ko wax kuy jël risque ci dara. waaw. ngay jël risque ñu ne la ah saa waay njariñ Mm. waaw. pour nga bañ pour nga yemale am aw nag nag nag wu rëcc ngay mm-hmm. jéema daw di ko jàpp far. mu lii la loolu xam nga du njëriñ loo fekk. Mm-hmm. Mm-hmm. sëñ Fallou nag dégg naa am na ku jëloon aw 10 000 mm. ñu wër wër 10 000 gisuñu ko mu ne ah gars yi nag ko jël du ko jëriñ dara mu ne xanaa bu jeexee. <laughs> ndax dina ko lekk ba mu jeexantal na ko jëriñ. fekk mi ngi yor 10 000 ba de mi ngi koy jëriñ. baatu njëriñ moom moo moo doy waar. ba pare itamit leen saa yi Fatima Seydi nit di jëriñ ay nit. maanaam di jariñ ay nit te amul njariñ ci yow masalan Cheikh Bara bala ma ko jox butéel bi mhm. damaa woo bu ñëw ma jox ko woo mu ñëw bétti ma jox ko maa ngi leen di jariñ mhm. mais man awma ci njariñ ah, moom la lay jariñ moom non sans yow yaa ngi wax ci sensu nit ñi li ñuy gis mais mm-hmm. man maa ngi wax ci sensu li nga juñu sens ne kii xam lu nga koo xam ne son mm-hmm. euh, ko waaw mais bu ko filmé wut du am lu mayee keneen tubay waaw non ah, loolu mooy li ngay gis non loolu sa loolu mooy li ngay gis mais bu ñu duggaatee fi nga commencé ci barke bi après boo demee ba ca xindaxaloolu oh. <laughs> am si sëñ tubaa di wax mm-hmm. foofu la problème bi nekk ñaari njariñ am na ñaari njariñ dañ koy filmer mais loolooy tax am na njariñ loo xam ne sondeel sondeel dina jariñ dina leeral nit ñi waaye moom day lakk caabi caabi mooy ubbi waaye du dugg du dugg waaw <laughs> man daal man daal ba tey ba ci waxu olof bii man lu nu war a mën a redistribuer waat lu nu mën a waxtaane waat la parce que man lu bari olof la koy wax ci biir daal di tëjaat waaye rek moom mooy li nga xam ne moom mooy njëriñ loo fekkee comme du dugg mu dëgg la ci xam ne moom mooy njëriñ loo fekkee comme ni ko béti waxee sànq looloo tax sax ñu indi baat bi ndax am na baatu wolof yoo xam ne mm. yenn saa dañ koy dégg di ko dégg nit ñi di ko mu gi ñu bëgg lu yomb yi moom la ñuy faral di léebuwaate tax mu ko daan def waaw waaw moo ah, ah, tax ma ne mën ah, nañ ko waxtaane mën nañ ko waxtaane waat parce que xam nga bu jëkkoon ak léegi du benn mën naa am ne sax peut-être bu jëkkoon nit ñi dañ daan nekkee si activités yi mm. daawul bokk ak léegi nii nga xam te ni si la ñu nekk nii ba tax na ñu ci bari sax dañ ciy jaarandoo njëriñ loo fekkee di tayal ñu leen tegaat table di ko discuter waat sama boppam voilà du bañ naa bañ naa la bàyyi <laughs> yooyu il faut que nga teg ko Fatma voilà table ji quoi. parce que ay kàddu mag la ah, ay kàddu daan wax te ba léegi ñu ngi koy utiliser te am na ñoo xam ne sax xamuñu sens bi. voilà mu ngi noonu vraiment lii moom baax kon euh, mu ngi noonu loolu lañ leen andi loon tey jii ci njëriñ loo fekke ah, tey jii gën na baax ndékki ndékki bee diis daal wala reer bi diis voilà mu ngi noonu daal inspiration bi ñëw bu baax day am déggoo wolof sax <laughs> damay ragal nag professeur yi jékki-jékki woo ñu si woo ñu waaye ñoom il faut ñu woo leen ñoom tamit ñu ñu leeral ñu. waaw am na ci solo nag am na solo.